waar wi nga xam ne ci lañ ko fekk muy berneel ay mbokki taalibe euh, liggéey bi nga xam ne dina koy ànd ak euh, isbu tarxiya fii euh, ginnaaw bi mu ci jotee ndigalu sëriñ Muntaxa ci jamonoy jëwrin sëriñ Atou Diagne booba léegi mu ngi koy taxawu ànd kook is bu tarxiya waaye nag bés bu set ci koor gi itam ñu ñëw toog fii ànd ak mbokk taalibe yi liggéey bu am solo boobu noonu soxna si ñoo ngi lay nuyu baax Mbacke Balla. waaw ñu leen delloo nuyu bu baax di wax Euh, liggéey bi soxna si bu ñu bëggoon a xam euh, nan ngeen koy amalee fii ci résidence bi. waaw liggéey bi moom nii lañ ko amee rek comme ni ngeen gisee rek daanaka diiru weer koor fii la ñuy nekk ci résidence bi waaye ñetti kuréel la am na buy nekk ci yokku jumaa ja am buy nekk fii ci Sëñ Tuubaa gi Daaru Manaan noonu lañ koy dundale nag ndax fii bi nga xamante ni ci jamonoy El Hadj Sidi Mokhtar lañ fi lañ fi woon di def ndog yi fee ci ëtt bi Sëñ Muntaxa nag booba dara nekk fi woon fi lañ daan def ay dogu di ko fi def ba suñu Muntaxa nag ñu fekk suñu ci liggéey maamam bi di dundal penc maamam bi ci weeru koor gi boole ñu isbu tarxee ñu nekk fi de gis nga ko bu ñu xëyee fi la ñuy yan bi minuit lañ fiy jógee nañ tàngal café café goo xam dinañ suukar lu mat ñaari saako suukar café gu bari defar ay bernde bépp bernde boo xam ne rek doomu aadama dina ko soxla bu ndaw wax ko def lal fi ay lal yu mucc ayib di ko di ko jox jaami yàlla yi. waa yëg-yëg la nag ak loo xam ne rek lu sëñ bi door a dogal ndax dafa am benn bis mm-hmm. ma am fu ma demoon génnoon dëkk ba tolloog fi dog jot ma dugg ci kër gi buntu bële boobu sëñ Alaaji Mbàkke mi ngi fi am na ko yàlla yërëm dolli koy leer man ko sëñ Alaaji dañoo bëgg a dog mu ne ma ñun amuñu café jumaa ja la ñuy ñaanee ci kafe ci waa Muxaddamatul Xidma ma ne kon kër sëñ Tuubaa kenn du fi indi dog mu ne ma déedéet waa Muxaddamatul ma ñoo ñuy may café ak mburu ma ko loolu de jeex na bu subaa dinaa fi indi ndogu ci suba ga ma defar ñaari cafetière café ak lu mat fukki mburu ñëw lal maak moom ak ay quelques fi nekkoon ñu laa di ndogu ma ne ma xalaat ni man li ma yor si ay daayira daal ni ñu bare kon weeru ko ñëpp lal seen kër ba mu jekk bàyyi ko suñ tubaab mu man nii daal jaaduwul kon man dinaa jël volontaire bàyyi sama kër takku sama ndig boole ko taalibe yi ma àndal yëpp fédération Ahlou Café ñëw bis bi set ma sas benn daayira mu ñëw indi fii daa ndax ñun 190 daayira lañ ñu jël juróom-ñeent fukki daayira 90 daayira fanweeri daayira ñu indi leen fii ci kër Sëñ Tuubaa gi fanweeri ñu yóbbu leen ci yokk jumaa ji fanweeri daayira yi ci suñu yóbbu leen ci kër Sëñ Tuubaa gi ci eh, Daaru Marnaan ni benn bis bis bi set na benn daayira indi ndog waaw ndog lu mucc ko aaye nag di nga def ndog lu mucc ayib lépp loo man di nga ko def boole ko li ñu am li ma amal sama bopp su ñëwee ñu boole ko ci noonu lañ ko def di ko def booba nag Sëñ Muntaxa toogul xalifa di ko def di ko def ba Sëñ Muntaxa ñu fekk suñu liggéeyal sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa ñu fekk la ca nag loolu mooy liggéey bu sëñ Tuubaa nangu ma gis nga ko fi mu egg tey jii nga xam daj na àdduna bi yëpp gis nga ko sëñ Tuubaa gi nañ koy lale ba mu daj teg fi ay dogu yu mucc ayib ku fi dugg xam ni fii kër sëriñ Tuubaa loolu lañ ci jublu ndax sëñ Tuubaa lii rek moom moo ko mérito gërëmu sëñ Tuubaa rek nag lañ ciy sàkku waaw léegi nag bu ñu demee ba mu toll fii am na ñu koy waajal waaye daayira yi ñoom kenn ku ci nekk da nga aajal sax ay ñi ñi aay bis bu njëkk ba dañ koy waajal ñi aay premier bis bu njëkk ba ci dem na ba ci yeneen dëkk yi waa Mbour dañuy togg si waa Louga dañuy togg si dëkk àll yi dañuy togg si waa Dakar dañuy togg si te kenn ku ci nekk boo ñëwee war a joxe si ndog bëggoo keneen dàqale la moo tax man la ñu ngi koy waajal bu baax a baax kenn ku ci ne ay gañ la jox fonk nga ko te jàpp nga bis ba nga war aaya ci weeru koor bu dikkee di nga ñëw ànd ak say bokk say xarit ak say soppe lépp lu ñu mën dinañ ko def maanaam ñi nga xam ne ñoo daan dogo ci mbedd mi loolu lañ dindi néew ji doole yi nekkoon ci mbedd mi ak doxandéem yi wàcc heure ndogu loolu lañ dindi ñoom lañ lalal lal yu mucc ayib tegal leen ci lépp lu ñuy soxla ñu ñëw kenn door dox di taxawaal di ndogg ci ay mbedd loolu Sëñ Tuubaa jëlee na ko fi fii boo fi degee ñu wérul sax ñu seen xel naqari sax dañ leen di laala tegal leen seen napp ñu ndékki buñ pare ñu ndogu ba pare buñ kenn buñ paree génn ñu ko yóbbu ci mbedd yi waaye dañuy xam nañ ko léegi léegi ñëpp xam nañ ko sëñ Tuubaa ku fi dugg ak noo mën demee ak yére boo mën di sol ak loo doye ak loo doon kilifa danañ la jox sa waaci waay euh, bi ñuy ñëw tamit euh, euh, di dugg si ma gis yi di ndax ñoom tamit fii la ñu ndogoo wala ah. waaw léegi nag bi ma defee loolu nag bu ma sase benn daayira ñu war a indi damay invité benn daayira ñu ñëw ndog boole ko ñooñu nag daayira boobu nag ñooy doon invité donneur yi nga xam ñoom ñooy ndogoo fi boole ko ñeneen ñi nga xam doxandéem yi ñeneen ñi ñoom ñëpp nag ñooy bokk toogandoo yëpp a yem nag lal yëpp a yem waaye nag bis benn daayira aaya dinañ invité benn daayira mu ñëw ndogu si tey nag yàlla dafa dogal mu ngeen tombeek waa Touba ca kanam ma bokk ak ñoom liggéey bi ma invité woon dañu war a dogu si fii ci kër Sëñ Touba gi xanaa di ci tàllal ñëpp loxo rek ndax daana kenn weeru koor gi moom kenn ku ne yaa ngi koy dundal ca fa nga nekk daanaka weeru promotion la boo defee benn ñu fay la fukk waaye wut nag suñu liggéey bi ndax lu baax du doy ñoo woo murid yëpp jullit yëpp képp koo xam bëgg ngaa def lu baax daal ñu ngi la ci tàllal loxo ndax lu baax moom du doy bëgg nañ ndogo yi si egg fu nekk ci àdduna bi jërëjëf ñu ngi sant bu baax Mouhalim TV télé bi sama télé la ndax sëñ sama doom la ci sama daara la alxuraan ba ni mu beree daaram def jàpp mi ni mu jàppee yaayam ma jàppee ko sama doom kon maa ngi koy ñaanal moom it bi fi bëgg mu egg fa yàlla na fa egg ci barke sëñ Tuubaa ndax ku jàppale la moom ci man la bokk maa ngi koy sant di ko gërëm